yi dëkk ouest ñu ànd ak ñun ci relance des activités boobu bu ko defee bu ñu fi jógee ku si ci ñoom fa nga ne nga yëngatuwaat xam ne kat ñu ngi jëm ci lu am solo muy euh, les élections territoriales de 2022 euh, waaw ndax fan yi ñu génn liste yi tijji woon nañu ko euh, képp ku xam coalition Benno Bokk Yaakaar xam ne ñu am pas-pas ci ne xam ne parti yi ko tënk ŋànk ko euh, dara yitteelu leen lu dul jàppale le président de la république donc liggéey boobu def nañu ko macha allah au niveau de Rufisque au niveau. waaw euh, wujj moom du ñàkk surtout ci langue politique. waaye yaakaar naa ñun ñooy euh, aawo yi nga xam ne dañu fees dell suñu place macha allah Benno Bokk Yaakaar pare nañu tey dans Rufisque jàkkaarloo ak képp koo xamante nga taxaw nga di laajte mairie bi moo xam mairie bu mag bi la moo xam ñetti mairie yi nekk dans la ville ñun pare nañu te xam nañu ne parti yi ñu ngi def seen kéem kàttan ñu ngi def liggéey bu mucc ayib LDR Yeesal en tout cas ñu ngi def seen waar pour euh, préparer wu ci li nga xamante ne mooy élection yi ñu jëm baax moom le président di Diagne Fada ndax euh, bu allier yëpp defoon ni moom ñëpp xam nañu ne actuellement mu ngi def tournée bu am solo à l'intérieur du pays bu ko allier yëpp defoon euh, yaakaar naa waa benn Bokk Yaakaar euh, yaakaar naa président Macky Sall fa mu tëdd xelam dina gën a dal ñun à Rufisque suñu xel dal na macha allah ndax ñu ngi ci ànd ak le président Souleymane Ndoye di honorable député ñu koy nuyu di ko sargal bu baax a baax ci taxawaayam biir Rufisque ndax nag coow li bari na lool. waaye ku ne xam na que la mën actuellement nag tolluwuñu ci di jokkalante waaye li ñu toll mooy liggéey wàcc ci terrain bi te ku dugg Tëngéej ku dugg Rufisque Ouest xam ne Souleymane Ndoye am na fi taxawaay bu am solo xam ne parti yi ñu ngi liggéey lu am solo LDR Yeesal en tout cas mu ngi ci liggéey boobu te duñ ci dellu ginnaaw. parce que tey jii nii li ñu ko jàngalee tout chaque jour mooy politiser vos vies. parce qu'on l'a appris déjà en sciences politiques avec Max Weber ak yeneen yi nga xamante ne tant d'autres et j'en passe et je veux pas euh, centrer débat bi ci li nga xamante ne mooy économie ak politique Adja yi nga xamante ne dañ fi présenter benn programme boo xamante ne taillé sur mesure réaliste et réalisable dans l'espace et dans le temps je parle pas en tant que politicien mais je parle en tant que en tant que leader en tant que Rufisquois en tant que koo xamante ne tey jii nii Rufisque moo ñu tax a jóg suñ doon ak tey jii si engagement ak dévouement am loolu taxuñu fee jóg mais loolu noonu dina bokk si caractère ak critères yi nga xamante ne moom moo ñuy moom moo ñuy permettre tey jii bu ñu demee élection yi ñu remporter ko incha allahu rabi te am nañ ci yaakaar bu wér a wér am nañ ci yaakaar ndax Rufisque mu ngi si ñu ngi si mu ngi ñu ngi si ginnaaw Adja Rufisque mu ngi si ginnaaw Adja jeunes yi nga xamante ne tey jii ñoo composé sama ginnaaw ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne tey jii nekkuñu fi lu dul développement ak. Euh, wàllum euh, assainissement yi nga xamante ne tey jii ni bokk na suñu programme su le plan sanitaire humanitaire ak wàllum social lépp li nga xamante ne tey jii nii pour suqali réew mi la ak suqali tey jii nii Rufisque Ouest tey ji nii si loolu noonu la ñuy dox